ay fukki bi ñaar waaye sa sëriñ moom weeru gàmm yëpp moom la daa màggal bu fekkee jàmm nañ ko fonk fonk yi du jaay ngeen ku ne da ngay wàcc fa daa gàmm di ñëw Tuubaa ku ne fa nga daa gàmm da nga fay gàmm ku dawul gàmm it sos ak gàmm fa nga fa nga fa ma ne wala nga fekk ñu koy def ànd ko ak ñoom ci jëf jë ak màggal ga